ginnaaw bu nu nuyoo. Mm-hmm. ah waaw ayca kaddu gaa ngi doon. waaw euh, Fatou ñu ngi lay nuyu. di bëgg lool di nuyu. sunu doom jii nga xam ne mi ngi ci sawet xaadim Gajaga xaadim ñu ngi lay nuyu. <laughs> di rafetlu. waaw waaw. dalal gi nga nu dalal ci sa kër gi dëgg la faatu loolu moo ñu ñor te deret ñu yëngal. biñ la woowee rek ne ci askan wi lañu bokk. nu waxtaan ci biiri maam. dangaa daal di ne ci sa mbaax ak ci sa woyof ñëw leen nu waxtaane ko dëgg la moo tax ku ci laal kenn rek ña ca des ñëpp suñu ñëw bii nag dafa ñëw boo xam ni danoo wéet ànd ak aw askan dal ci suñu kaw di nu xas ak a suufantal ñu betti ak a doyantal di ñu beddi di ñu ànd ak ñenn nit ñi daal di leen influencer ñu ñëw di dal ci suñu kaw di ñu wax yu ñaaw ak yooyu te nun daal fii yëf yi tàmbalee laa lay demee ndax nit bëggunu la dugal bëggunu laa dugal ci lool après nit ñi dañ naan fëlaxoo la ak rajoxoo bëgguñu offensé kenn nun dañoo taxaw seetlu hmm. ne lawbe gi dafa manque considération ndax lépp lu ñuy def rek daanaka dañ ciy jiital géwél ñu bàyyi law bi hmm. bañu leen naam nangul nan leen ko waaye nag nan teg law bi ci wet gi waaye nag nga jum fanam koy bopp boppam jërëjëf nga kanam borom a koy fayil boppam. moo tax nag mu dukki fu yàlla. ah na. ñoom nag dem nañu dégg naa ñu ngi ci seen mbir. dem nañu gisi seen nit ak seen i moroomu géwal di divulguer divulguer seen i vidéo lu na ñu jox ko. dëgg la dégg ah. naa buumrang lañ leen yóbbu. mooy vidéo bi ma la paas keroog. waaw bi ma la joxoon. waaw yow seen naa ci Mballa Mbaye. mu ngoog lu lu leen di waaw di xëcceeg mu ngoog di gis naa ko. jërëjëf may ma tuuti ma yokk la bu la gërëmaa may ma tuuti cof. Mm-hmm. dama laa cof rek. Mm-hmm. waaw daayal waxam mosaleeg ñamali la. waaw waaw ah, bon. Mm-hmm. Fodou. il est temps. guerre la. guerre day saf mondial. dëgg la sap dee la wala dund. waaw. Malle Mbaye dem nañ fa mooy vidéo bi ma la jox. waaw muy la ko baara rek. mu ngoog def fi ngéwale yooyu rek. waaw. Ah, Serigne Medoune leen wax day leer. waaw waaw ah, waaw. Serigne Medoune Seye moo leen. financé mooy defeyaa bi bi waaw. nga ne jëlal leen xam nga boomerang studio boomerang ba nekk boori euh, UNICEF. man mm-hmm. ak Serigne Madoum Seye ni ma ko bëggee moo def loolu. ah moo nekk seen ginnaaw de ah ah. ah moom fanweeri million de la ñu dégg ni ci waxi ci dégg nañu fanweeru million la jël dugal studio boomerang waaye loolu yow bu mu la naqari ñun dinañu jox juróom fukk. nga ni dama jàkkaarloog moom. xam nga ah waaw juróom fukk la ñuy jox ay millions. léegi nag boomerang. googu moo ñu jaaxal ndax boomerang studio bu mag la. nga ne boomerang boori INEFCC la. boori. Wembale Wembale waaw. ñu encombré ñu. génn album ba xale yi du ko Chine ba ka teg fu ne ci dëkk bi. nga ne ñu bëgg nag nga jóg Fatou génneel camion yi. Mhm. génneel sa boutique bii bu dara des. daay la xedami ayut tii ma waaw waaw mhm. eey eh, eh. mhm. eey eey jaay laa fa cere ja ñor dëgg la mairie bu leen joxee fanweeri junni waaw fanweeri million ñun law bi dañuy jox juróom fukki million dëgg la loolu laa bëgg wala ma bàyyi nga defati takkoog ma laa dox ñu def ko yëpp ko yëpp ay jora la waxal mu ne waay takkoog ma laa dox ay waay ay ay mi haalanta mi haalantomoon gueɗel gootel gueɗel gootel di mbi labbo dikka pulla samba mbaɗo demba diala ŋaani kono deggulit xam ngano xam nga li ma gën a naqari sunu law bay njëkk ya meloon ni Paa Malaw yaa ngi koy fàttaliku Paa Malaw mi dëkkoon Médina lay Médina la dëkkoon mag yi law ba yooyu waaw gis nga bu leen géwél yi mosanne duut ñu leen duut waaw waaw bu leen géwal yi ne timbax ñuy leen timbax dëgg la waaye léegi nag mm-hmm. seen classe gi dañoo bëgg ab tukki nag dëgg moo tax lu ñu dal ñooñu ko teg dëgg la dëgg la bëgg ab tukki bëgg voyage na walis mm-hmm. ñu nga Italie mm-hmm. Allemagne France Belgique ah fu ne ña nga faa dëgg la waaye lii ñoo koy fajal suñu bopp da ah, kay faatu bind leen ci agenda bi xam ne dinañu bindal juróom fukki million sëñ Madoum Sow dinañu ko jox wala dootul am jàmm ci réew mi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 moom ndax bu ko géwal yeeg law bay séqee waaw jàmm moom du ko am déedéet déedéet ah. léegi nag Fatou ah hmm. Fatou hmm. fent xam nga maa la fente na waay ba xale yi di ko TikTok hmm. fenteel léegi ñu balaase ko ñu ne ñu am TikTok fental ci ci la saltige ñaayo ñaay saltige woon Turma, filha, mãe.